ñu jaakaar lool Air Afrique moo ñu won mbisaan Air Afrique waaye air bi moom fan lay wàcc Mali wala Gambie wala Mauritanie wala Niger mbisaan Air Afrique mbisaan mbokk yi moo ngem boo ngem lu ñuul li Air moo ngem boo vaseline wuy na turam de vacciné Afrique lañ ko xamee jël na ko ay eh, Afrique ay eh, Afrique nooy def da nga koy yàqale wala eh, misaana Afrique ay Afrique yooyu dóor ay Afrique yooyu dóor misaan waaye misaan jël ba nga ko jël sànq baax na xaw ma lu tax nga bàyyi takk na ko ay Afrique misaan eh eh. Missane ak Air Afrique dóor Air Afrique ak Missane Missane Air jël na ko jëlaat na tànk ba Mbissane takk na ko dalay mbot oh eh Afrique daanu nga Mbissane daan la danga ko tëgg mbot mu wucci la Mbissane daan na Afrique.